cent cinquante millions di ko rawale kon xam nga dem mos nguur Macky Sall gi ndex na ci ñoom ñoo yey ndey mooy ci nguur bi tey ba mu dëgëree duñ ko baax ndax bu du woon nguur gi kenn du leen xam bu du woon nguur gi duñu doon dara tey moo tax ñu téye nguur gi téye ko mooy ci moom ne duñ bokk nguur gi sama gars ñun ay xale lañ di ay ndawu Fuuta di ay ndawi Sénégal duñu ay politiciens politiciens newu suñu kanam politiciens newu suñu ginnaaw am nañ droit génn di revendiquer notre droit ñun hôpital gi moom moy sunu principal hôpital Ourossogui tey na mu mel ku ci tek sa bët bu nekké rek ngay doomu Adam. doomu aadama la la wax waxuma la Sénégal ngay doomu Adam rek tek sa bët hôpital gi la fa am sa xol day jeex ngay joy ndax la fa nekk nga naan li du ay nit ño fa nekk du ay nit ño fay fajo mais loolu yep ñu ak dignité diko muñ diko xex ñu génn ñaata sorti lañ def man fàññaay ñaata télé laa toog fii tele yi nekk Ndakaar bi toog naa ci bi bu ma toog nañ wax télé bi tooguma ci télé bu ne Ndakaar bu ne toog naa ci moom télé bu ne rajo bu ne Ndakaar bu ne toog naa ci moom mais au nom de quoi man ma toog ci tele bi nga xamante ne mooy télé Pape Alé ñu ne pourquoi ma fay toog wax ji ne wax ji mel ni tulleeg Mali ñu def ko raw pur que ça dama def ay menaces de mort Eh, ay menace de mort lañ ma def yow yaay tay ndjay man len waaw yow ya dekk beureum sàngam man leen waaw mbaa bind nga sa testament man len pour la ñu ma waji la sa testament da buñ la jappé dañ lay ray dañ lay kil way yënd ak way yënd ak way yënd ak tamit tamit tamit xana ma tam rek boobu du ma bi xana man duma juddu dekk bi xana man da ngeen ma gën nday wala da ngeen ma gën bay bokku ku wax rek ngeen génnee ko seen nerve d'or ma ñu ne déetawaay ngeen ne ko bu nekk ci dëkk bi la bok da ngeen koy ray way yalla day sak ci fanweer fa rey ci fuk ak juróom yene ñan vous êtes qui yene fo lan toj ba ngeen wara mëna note nit ñi tay leen japp leen def leen ay jàng au nom de quoi damay wax tay wax suba wax ginnaaw suba ñaar rek may téré baña wax la ma bëgg ci Sénégal gi wax rawatina Fouta Gueye ma am ko wa ila rek ci repose ngeen buñu wax dañuy wax ba mu neex ma jël poppul sénégalais bi yëpp ma jël arrêté leen appel s'il vous plaît damaa nekk ci live ne naka lay nekk ci live ñu koy woo ma jël peuple sénégalais bi yëpp ne leen nañu gis nañu dégg parce que nag nee nañ awma droit wax sama gaay yi hôpital Ourossogui ngi xool leen bu baax li mooy hôpital Ourossogui koo leen ba pare maximum de partage s'il vous plaît maximum de partage s'il vous plaît tay dama fas yéene génne yépp yëpp duma ba dara tay dañ doon neub lu ne dina ko génne li mooy hôpital Ourossogui sama gars yi principal ni di la xool len de pareegul de sama gars yi li ma ëpp taabu rasoo gi lii mooy hôpitalu Ourossogui gi mu ngi nii sunu principal ñun lii la yéen a ko gisandoo lii mooy hôpital Ourossogui gi yéen a ko gisandoo xoolal ay xar sax dañ leen def ci biir hôpital wala soo bi maanaam ñàkk ñoo respecté dañu koo def dara xar docteur ba fa nekk moo jël ay xaram di ko fa yar ni lancement bi la rek ma bi ñëwagul la ma leen nar woon tey tey duma bàyyi dara dara lu gën a ndaw duma ko bàyyi li ma hôpital wala soo bi sama gaay vidéo bi fa xawa gudd parce que dama ko jël li la ma gars yi toppee s'il vous plaît nako nako supprimer mi defal ma luma bëgg dañu juum monuma supprimer dara da xam nga nan la man kenn monuma xoxata kenn mënumaa delloo ginnaaw man damay diñ ba xey dee man jigen la tay lu goor waron def la taxaw diko def di revendiquer sunuy droit ñaata ñaata leader tey ñoo ma woo ñoo xam te ne bu Macky Sall ne Issoe ñu ne Yaram Kalla ak maa leen mënoon a wuy ji wuy ji wu ma leen waaye dangeen topp sama faiblesse am na loo xam ne sa jar ta wax. bis man même bu ma amul zéro franc aw ma dara sëggam rek maa ngi xeex li may xeex te muy combat bu noobu du ma noppi. daana maay bi tey jii nii xam ngeen Fuuta bay dunde la waaye tey bu tawee moo ñun coupé nañu ci àdduna foo ma sa gisee lu toll ni daana maay nga ne leen cotiser leen. joxe leen cinquante millions ñu door leen defaral seen yoon mais ñu ñu de dañoo nangu de ñu joxe cinquante millions deux mille dix huit lañ ko waroon defal ba jooni yàlla tey dafa am kenn koo xamante ne ma dugal ko dama koy dugal en direct ngeen wax ko ngeen dégg dama leen di tegal vidéo bi su ma paree ma woo ko mu dugg ngeen gis li wax parce que nag wax ji bari na

xool sama gars yi nee nañ Fouta va très bien xool leen xam nga ñu lu ñuy naane lu ñuy utee ndox dañuy gas ci suuf si gas waxuma la teen dañuy gas ci suuf si pour am ndox bu ñu naane mu ngi nii gis ngeen lii lii ci Podor la bokk lii Ablaye da Diallo may génne ay millions di dem di ko situñe